yéen ñi nga xam ne yéen a baaxoo ànd ak seen bii di Mbacke Kadior TV. yéen ñi nga xam ne yéen bàyyi xel seen site internet Mbacke Kadior TV. Mbacke Kadior TV. di sàkku yi ngeen di abonné. asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñi bàyyi xel seen site internet Mbacke Kadior lépp loo xam ne nii rek jëm na ci wàllu diine fas yéen nañ ko faa waxtaanee. wax Mbacke Kadior TV. ñu ngi am mbégte lool seen teewaay. di leen nuyu ay yéen baax a baax. ñu ngi nuyu ñëpp di am ci ñi nga xam ne yëpp ñi ngi di seetaan Mbacke Kadior TV ñu ngi sant ñëpp yéen waa ah, Mbacke Kadior TV sant leen gërëm leen ndax fu ñu gestoo gis leen yéen a ngi lay liggéey liggéey bu rafet di ko ànd ak ñun na mu gën a selle kon ñu ngi ñaan suñu borom mu dem ba nekk télévision boo xam ni fu télé àgg ci àddina bi dina fa ak barakat rasulaay alayhi salaatu wasalaam waaye lépp lu jëm ci wàllu àdduna yi fas yéen nañ ko faa waxtaanee. Mbacke ah, bii di site internet Mbacke Kadior TV. Mbacke Kadior TV. ak lépp loo xam ne ni xew-xew la bu nit ñi mata yeeg mu yëgal leen ko. mbokk yi ñuy topp topp ci Mbacke Kadior TV. di gërëm ñaa nga xam si ni ñoom laa andoon ci émission bi di Mbacke Kadior TV. ak mbokk yi yéen bàyyi xel seen site internet Mbacke Kadior ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziare di rafetlu ànd bi ak seen site internet Mbacke Kadior TV. mbokk yi ñuy bàyyi xel di teewlu site bii di Mbacke Kadior TV di rafetlu bu baax seen liggéey. télévision Mbacke Kadior TV. Mbacke Kadior TV. kon lim làmbool daal mën naa ne bari na waaye njariñ la lool njariñ lool nag ngir nga man cee bokk da nga ciy mën a abonné di man a jot vidéo yi ak information yi fay jàll yëpp. nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel seen site internet Mbacke Kadior TV ñu ngi leen ak Mbacke Kadior wax yéen leen di ànd ak seen site internet Mbacke Kadior TV. si na ko ànd ak Mbacke Kadior TV di liggéey bu am solo boo xam si ni waxtu nekk moo koy fësal. ngir yaatal lu jëm ci màggal gi ñoo leen ci gërëm bu baax a baax. ñu ngi leen di sant ci ànd ak ngeen ànd ak Mbacke Kadior TV muy site bu am solo boobu bii bàyyi xel bu baax a baax sit bi nga xam si ni mooy Mbacke Kadior TV seen liggéey rafet na seen taxawaay am na solo seen jëf itam mat na ci màggal gi ndax waxtu wu nekk ñuy gis seen jëf ak seen yéene ak seen pas-pas ci liggéey bi ñoo leen yi gërëm bu baax a baax sëñ musaa ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. di la ndokkeel bu baax a baax sa taxawaay rafet na sa yitte pas-pas bi nga jox liggéey bi am na solo yàlla nga ci am ndam ci barkeb Cheikh Abdoul Moustapha site la boo xam si ni site wala site boo xam ne ñëpp ñëpp ñëpp ko tax a jóg ndax site la boo xam ñëpp ko tax a jóg moom Mbacke Dior TV ndax site la boo xam si ni fépp foo xam si ni ab liggéeyam war na faa mën a dem dana fa yaatal ab liggéeyam. kon duñ def leen loolu sant la Cheikh Moussa di ñaan nag euh, euh, sa euh, bi di Mbacke Kadior TV. suñ borom gën koo jëmee kanam egg foo xam dana gën a kawe sa njot barke Serigne Touba ñu ngi koy topp baax nag di ko suivre saa su nekk waxtaan yu am solo yi ñu ciy def yëpp ñu ngi koy topp ñu ngi ci ñaanal baax nga gën ci amee lu gën lu gën a kawe sa njoot di sant bu baax nag di la di la bëggee bu wér di ñaanal mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan suñ borom defal ñu toog feex ak mucc di jégalu bu baax nag. di siyaar bu baax nag ñi nga xam ne ñooy taxaw site bu am solo bii nga xam liñ ko tuddee di lépp ndax fa la lépp bàyyi ko fa la lépp déparé muy Mbàkke Kajoor kon na fa yëfi déparé ba law ba àgg fépp ba daj fépp eh, Cheikh Moussa ñu ngi lay ñaanal tamit sa site bi moom it yàlla law ba daj fépp ba fépp fu yoonu murit àgg rek yàlla na fa sa site bi àgg ak sa liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def di digal ñëpp di ñaan ñëpp ñu koy topp ci seen YouTube bi di Mbacke Kadior TV ak yeneen mbooleem kii yi nga xamee ne si am na ko ci réseaux sociaux yi moo xam ci Instagram wala ci Facebook bi yëpp rek lu am solo la loo xamee ne si nit ñëpp war nañ ko def suñuy te. bi moom mooy moom mooy Mbacke Kadior TV waaye yàlla ngeen yokk yàlla ngeen yokk ba mel ni yokk jumaa ji rek. barke maam Cerno Birahim Damal ñu ngi dégg TFM yàlla nañ leen ko dégg ca kaw a kaw a kaw a kaw yàlla nga yokk rek ci barke maam Cerno Birahim Damal Daaru ak barke màggal gii man sax man mënu maa wax maanaam mënu maa wax sama xol daal seddu guy di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel si bii di Mbacke Kadior TV di leen ñaanal yàlla suñu borom aar leen sàmm leen. ñu ngi nuyu ñëpp di am mbégte ci ñi nga xam ne yëpp ñu ngi eh, seetaan Mbacke Kadior TV.